Pikine suñu laajte kan kan kan moo koy remplacer Khadim Ndiaye numéro un di boucher le boucher du dimanche ñu ne nag récompense nañ ndax dugal nañ ko ci biir xam moo di CNG moom béykay rek moomee kasaalika naka ñetti promoteur rek lañ dugal CNG bi nag ñu nekk lii di conseil Papa di grand frère kii di Bombardier moom Papa Dia axlu ah lamb ràññe woon ko lool lool lool ñu ne tey nag mooy un an gannaaw bu mu dëddoo àdduna gannaaw bu mu quatrième page ñu dem passation de service bi def nañ ko dëmb Alioune Sarr dem na Birane Sène ñëw na maa la wax lii waaw waaw Alioune Sarr moomee Birane Sène Gaston Mbengue ñoom ñëpp de ña ngoon ca passation de service ba de waaye moom Alioune Sarr moomee nag ak CNG bi fi jóge bàyyi nañ ay millions la wax lii waaye nag CNG bu bees boobee nag arène nationale la fa lañ jëm de fu mooy ñoo seen chaise bu bees tak tak tak waaye li am solo ba am solo mooy ñoom CNG bi fi jóge nii di CNG bu Alioune Sarr amuluñu kenn kenn kenn kenn benn bor benn det bàyyi moom CNG bu Birane Sène moomee ci arène nationale lañ jëm de jóge nañ ci Léopold Senghor nag foofoo nekkoon seen siège waaye dem nañ ci arène nationale ñetti bureau lañ leen fa joxoon ak benn moom Birane Sène moomee dem na fa démb de di système bu moom Alioune Sarr moomee jël na la jox kii di Birane Sène moom Alioune Sarr moo nee mission Birane Sène nag mi ngi soog a tàmbali nag a moom Birane Sène moomee mooy wax nag nee nag document yëpp xool fi a moom Alioune Sarr moomee nag moom Birane Sène moomee nag a moom Gaston Mbengue moomee nag gannaaw ba loolee Love Diallo nag muy féddaliwaat njaalam nag ci Balla Gaye 1 nag di xam leen nag champion la woon bu mag a mag ci boxe nag di ko féddaliwaat njaalam di ko rendre lii di hommage sixième pas ñu dem mémoire de la lutte kan lañ ko jox moom Balla Gaye 1 moom moo ñëwoon de ci biir journal am nag la ko defee wax jaar-jaaram wax carrière am mu tàmbalee ba fi mu moom Balla Gaye Ndour ñu gën ko xam ci Balla Gaye moomee suñu lam na interview ba de na ko jaax ci biir li nga xam moo dem leen yéeri ko Balla Gaye 2 Lac de Guiers 2 ñu ne nag ñoom dañ jëm si yenn combat de fële ci Guédiawaye nag te nag dara war leen nag lu dul gagné de pour honorer nag mémoire kii di Balla Gaye 1 rek moo leen war si combat biñ jëm tempa ñu dem caat bu booy bambara ca Brooklyn ma ngay tëkku de ma ngay tëkku kii di adversaire am waaw waaw di Modja ca Yoff nee man Modja yow munoo maa daan da sono sa bopp rek di nax say mbokk moom caat moomee paregul de nee nag lépp loo teg ci lamb rek man maa ko ëppale moom caat moomee nag mooy kaas de nee na booy bambara nag ancien gloire nañ ko jox cër bi moom ak lu lamb ñëpp nag laay waxal de damaa bëgg nag ñu teg ko loxo tegal laamu tey kan moo fa nekk Ama Balde ak client moom Ama Balde mu nga doon de yab na nag ci seret ba yab na ko yab na suukar yab na diwlin yab na ceeb moom Ama Balde moo koy diri di dox client baa nga ne nag Ama Balde an sa seret bi Ama di ko tontu mu ne ko dama ko noppal temps yi damay jëm ci combat royal di préparer combat Modou Lo maa gën a taxaw fuuf balaa ma koo xam arbitre soufflé yéen a kaay papa pëng yéen a kaay tey maa ngi koy may alaaji Fallou Galas jarbaat jëlal happy birthday yaay borom seen doom day organe moo fi jaaroon dem na wasalaam